il faut dire que depuis le 2 avril nous le pouvoir est en place. Mm -hmm. le 2 avril ci la le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye prêter serment depuis le 2 avril nous sommes un parti d'opposition mm -hmm. li ñuy wax en fait du sax par rapport aux actes que le gouvernement a posés c'est par rapport à la démarche. Mm -hmm. de du PASTEF et de ses alliés Diomaye. euh, 2024, la coalition Diomaye 2024 oui. qui a porté la candidature du président Bassirou Faye et qui en a fait le président de la République du Sénégal. Nous avons dit que la démarche est n'a pas été la meilleure. loolu la ñuy jàpp dañu jàpp ne Sénégalais yi ñoo voté effectivement et Bassirou Diomaye Faye est le président de la République issu du suffrage universel aucun doute là-dessus mm-hmm. Sénégalais yi ñoo ko fal mais li am moom mooy dañ jàpp ne Sénégalais yi fal nañu violence accepté nañ violence dans la politique. accepté ñu injure dans la politique. nañu manipulation dans la politique. Hmm? parce que li xew avant élection yi de 2021 je crois que dinañ ci revenir avec cette loi d'amnistie hmm. de 2021 à 2024 ñun ñoo ñoo ci tegandoo suñu bopp il y a eu des morts on de 60 morts au moins. Hmm. vous avez vu 2021 euh, juin 2021 destruction yi fi am. et cetera 2023 en mars 2023 gis nañ li fi am yëpp. te lool mais dafa am ay ñu ko. sooke. <laughs> quelle est la responsabilité des uns et des autres on ne peut même pas. mais vous avez été au PDS vous savez tous que l' souvent dañ koy taf ci mur bi donc ñoom ce qu'ils disent mooy situation bi ñu nekkoon légitime défense la woon soit révolter résister wala disparaître. vous dites que c' de la légitime défense comme am na ñu koy wax. Mhm. mais am na ñuy wax ne provocation la. lan moo ko mën a leeral il faut de l' arbitre. l' arbitre mhm. y' arbitre dans une la justice. Mhm. aujourd'hui ci papier euh, jàngat boobu nga wax nous avons réclamé l'abrogation de la loi d'amnistie dinañ ci ñëw mhm. mais naka nga mën a indemniser ay nit te juger woo leen mhm. sur quelle base va-t-on faire des enquêtes pour savoir le préjudice de Massamba ou bien de Mademba pour mhm. les juger donc ce ce pouvoir le pouvoir du président Bassirou euh, Diomaye Diakhar Faye qui a basé bi nga xam ne daf na daf doon xeex ngir jubal comme il le dit jub jubal jubanti tegaat dëkk bi ci yoon ci justice parce que ñoom ils ont dit dañu nekk victime de du système judiciaire mais, ont même engagé des réformes des réformes mais demandé nañ ko mais la première ce que nous nous attendions de la première oui. réforme que nous attendions de c'est de la loi d'amnistie pour véritablement faire une enquête exhaustive de d'indemnisation ou de quoi que ce soit et puis situer les responsabilités yow du nekk ñoom dañ leen tànc ci miir bi ce qu'ils faisaient c'est de la résistance mm-hmm. mais euh, fi jógee mais daf na ñoom il viole la loi le terrorisme. gis nga charge yu lourd yi ñu jëloon takk seen bopp. parce que ah, mais salaamaaleykum rek on efface tout. c'était même le 10 ans notre président notre premier ministre ont été accusés accusation yu garaaw. mais du on le premier point que nous posons c'est que lii mënuñu ko bàyyi mu jàll. Mhm. à différents niveaux et et j'interpelle. ne serait-ce que pour ñoom dafa war a leer. absolument mais la question est-ce que le président Bassirou a marché sur de cadavres pour accéder au pouvoir. Mm -hmm. il faut répondre à cette question. ah léegi yow. Euh, dama ne ndax Basi président. oui Bassirou Diomaye ndax doxul ci ay néew. pour jot pour yegg pale li ngay laaj mooy ba xam. oui. il peuvent avoir des responsabilités ci moor yi nga xam ne am na. absolument ku nekk force de l'ordre manifestant. Mhm. ñoom ñu accusé ne force de l'ordre ñoo tiré ci manifestant yi manifestants yi de mais les forces de l'ordre benn légitime défense mu ngi fi. sax dañ leen attaqué. Mhm. peut-être avec des vous avez vu les vidéos je les ai mhm. bien sûr ay nit ñu civilu di tirer ñu ne ay nervi lañ ñu ne du ay nervi